Bakel am contentement bu baax delluwaat ci dëkk boo xamee ne euh, li ma liggéey ci wàllu sibiru lu bëri fii laa ko defee ci région de Tambacounda euh, mooy loo xamee ne ñëpp xamee ne Illumigène malaria dama fa ñëw rek xalaataat ne ñi ma gis si ginnaaw ma gis ko fii ci transporteurs yi mooy Sénégal ay doomam mën nañ defar réew mi am nañu xam-xam am nañ mën-mën parce que test boobu ma inventé mu Illumigène malaria heure bi bokk na ci taxi yi ëpp doole ci àdduna te mooy suñu ndam ci Sénégal ci wàllu wér yaram mooy wane ne ñun suñu doom réew bu ñu leen gëmee rek ñu mën cee génn mooy wane ne soxlaatuñu di jéggaani benn yoon xam-xam wala man-man comme ni nga xamee ne mooy PSE bi ni mu ko defee nga xamee ne bind bi ay doomu bitim réew ñoo ko liggéey li ci bëri ci Sénégal ak bitim réew ñoo ko liggéey alors que ñun li ñu yor ci xam-xam suñuy doom mën nañu liggéey réew mi ba nga xamee ne dootuñu jéggaani ci dara moo tax ni ma bindee sama programme nga xamee ne expert sénégalais laa ko jëlee liggéey ko ci wàllu yëpp loolu laa koy incha allah te xam naa ne programme bi nga xam ne ay Sénégal la ñoo ko defar ak man noonu ëllëg buñ leen ko joxee dinañ defe ne noonu réew mi ba nga xamee ne Sénégal réew mi Sénégalais yi ñoo koy moom parce que kenn duñu dënk ndax keneen a ko defar te loolu programme boobu ak Sénégalais yi en moins de cinq ans mën nañ ko defar donc encore une fois may gëm ne réew mi ay doomu réew réewam ñoo ko mën a defar lépp lu nga xamee ne politique politique politicienne defoon na ko fi pour ñuy wut xaalis faut ñu dindi ko donc may lancer message aux Sénégalais que nañu buus politiciens yi nga xamee ne seen bopp moo leen fi nekkal di wut loo xamee ne di ko def lépp pour ñu mën a enrichir la li ma bëgg mooy réew mi incha allah dinañ ko jox doom réew mi ni ma nekkee expert ba defar test boo xamee ne muy Ilmi Jeune moo ëpp doole ci àdduna ci teg test ba ci maintenant médicament yi sibur bi nga xamee ne tey bu fekkee ñu ngi koy faj ci Sénégal ci Afrique mënuñu ko def te waxuñoo man parce que maa koy évaluer donc cela veut dire ni ma mën a def Sénégal en ci wàllu santé noonu la yeneen suñu doom réew mën nañ dimbali Sénégal ci yeneen secteurs yi donc moo tax ñëpp laay ñëw ñu boole ñu liggéey pour que sa réew mi nekk ci loxo Sénégalais yi mooy lépp lu ñu mën dañ ko def ndax bala nga naan ne fa te Sénégal boobaa day dellu ci loxo doomu réewam ñu mën ci ànd waxtaan ko ba lépp li nga xam ne développement daay am sant naa leen gërëm naa leen. day wax aussi que li ma gis si yoon bi boobu ba léegi doy na ma. li ci am solo mooy xam naa ne yéen doyal ngeen ci politiciens yi mais pour ñu mën a gagné il faut que dem retirer carte yi dem leen retirer carte yi dem leen nga retirer carte électeur te bu dimanche incha allah ngeen dem vote ji bu ngeen ko defee li fi nekk dina dañ mais ku toog sa kër ne ne fa deñ te demuloo vote ji te retiroo carte li fi nekk moo fi nekkaat rek te bu waa dañ gën a sonn encore une fois jërëjëf wasalaam waa Bakel